village de plus de 80 000 km. tibir Sénégal fi Nous fait Tibir Sénégal nous la fait dans la diaspora de New York à Californie en passant par Dallas et Texas de Montréal au Brésil de Londres à Tokyo en passant par Mali par Paris Milan et Madrid de Tripoli à Johannesburg et de Bombay à Kuala Lumpur en passant par Guangzhou donc président Macky Sall il est le Sénégal mais est la diaspora Donc le président Macky Sall s'est rendu compte des difficultés yi nga xamné président euh, sénégalais de l'extérieur ñu ngi koy dund kenn ignoré wul né sénégalais de l'extérieur fay contribuer plus que l'aide internationale lu muy duggal fi ci biir Sénégal kenn naataable wul tam né crise économique dafa am dans le monde partout dans le monde et crise bu amé ñi ñi ñëk laal moy les immigrés té xam ngeen né dëkk yu bari fi mu ne li ñu campagne moy immigrés yi delloo leen immigrés yi delloo leen immigrés yi tax ñu leen di fal comme le phase BINI, fonds d'appui aux investissements des Sénégalais de l'extérieur est une initiative noble à saluer et à soutenir appuyer les Sénégalais de l'extérieur c'est aider le Sénégal appuyer les Sénégalais de l'extérieur c'est donner amener l'expertise et l'expérience au Sénégal appuyer les Sénégalais de l'extérieur c'est créer des emplois au Sénégal appuyer les Sénégalais de l'extérieur c'est renforcer la stabilité sociale et économique au Sénégal car chaque immigré

ministre des affaires étrangères et des Sénégalais à l'extérieur revolving lañ wax lan mooy revolving mooy mu génn delloo suwaat ñu fay suñu ay morom mun cee jëriñoo kon nag waxuñu ñu lebal leen rek xaalis bi ci seen loxo waxuñu rek ñu jox leen pousse bi pousse bi réer ak yeen li ñu wax moy ne président Macky Sall def nañu 15e région mais buñu gëna goré nak buñu gore tam yalla na yalla oyofal ñu mëne ko fay ñëpp. ni nga xamee ne am na ay dëkk yu mel ni Amérique ak yeneen dëkk yu commencé fay yàlla na leen yàlla oyofal yéen ñi war a jot tey itam yàlla oyofal leen ngeen mun koo fay ndax kat nag boor fay la sant bu leen fàtte nag ay royukaay lañu ñu ngi ci diaspora bi mais Sénégal fii dañu def ay royukaay puisque dañu def ay royukaay nag dañu war a wane un bon exemple ma ci dellu rek di fàttali ne fi may jeexalee mooy ne damaa bëgg a benn message monsieur le ministre madame Soxna Naata dama leen di yóbbante ci président

immigré kenn ku nekk bu xamoon dërëm bi dërëm bi muy am naka la ciy sonnee su bàngoon bëccëg a guddi ku gisati alalam dina ko sàmmal suñ leen joxee investissement yi ñu investir ko fii jël ay nit fii di liggéeyal bu ñu ne immigré la rek jeexalu dara ah, ah soxla nañ ndimbal nañ leen jàppale sàmmal leen seen alal bu ëllëg ak si mu nekk njëriñu ñëpp kon nag foofu laay yem di leen di remercier seen attention God bless Sénégal and God bless the diaspora Madame Assundaou. Omar Diawsek va venir réellement prendre la parole. Je rappelle que Kousinek Nyati Minute Danyamei. Omar Diaosek, Soufine Koulé, Damaïwo, qui va maintenir. Omar Diaw D'accord. Après, Madame Bébé Diop se prépare, comme ça, nous le financement. Après, ministre Rivi, Ramener le ne dañ pour euh, cérémonie bi jël kàddu bi merci euh, salaamaaleykum bolomi mi salaamaaleykum euh, excellence monsieur manker ndjay mi nga xamanteni mom le président de la république dink lépp lu jëm ci walu bitim réew ak doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew. maa ngi lay nuyu di nuyu tamit euh, sunu jigéen bi nga xamante ni moom la ñu dénk bànqaas bii nga xam ni moom la wax FAISE ñu di ko wax fonds d'appui en l'investissement des Sénégalais de l'extérieur mu di soxna Naata Samb Mbacké ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni euh, moom lay doxal defe naa ni ni ko ñëpp waxee nag laa koy wax euh, daan nañu wax ñu ni mag ñi daan nañu wax ne nit ki làkk wi nga xam ne buy gént ci lay gént bu meree ci lay wax boo bëggee wax mu dugg ko caw làkk woowu ngay wax ak moom kon loolu moo tax maa ngi jéggalu ci kàddu gi nga ni moom laay yëkkati fii di ko wax nak te defe naa ni ngir mu war a dugg ñëpp mbir mi li ci solo ñi ma jiitu wax nañu ko waaye wolof dafa daan wax ñaari wax nee na xaalis konte la sant waaye bor fay la sant lii dañoo cee bokk ak suñuy juni juni morom dugal ci yàlla dogal ñu tànn ñu ci am ñi ci des ñu toog loo leen di leen xaar kon yaakaar boobu nga xamante ni Fès am na ko ci ñun affaire étrangère am ko ci ñun le président de la république Macky Sall am ko ci ñun ak nguuram nañu góor góorlu ba yaakaar boobu bu mu tas ndax doomu Sénégal su génnee réewam di tukki ñetti mbir lay yóbbu waaye su fa defee weer rek ñaari day ñibbi si bàyyi fa benn benn mooy dana yóbbu jëmmam dana yóbbu xolam dana yóbbu xelam waaye fu mu mën a nekk ci àdduna bu fa defee weer rek xel mi ak xol bi yépp dafay ñibbisiwaat Sénégal bàyyi fa jëmm ji kon defe naa ne loolu ma wax lu am solo la ndax doomu Sénégal fu mu mënti nekk réewum Sénégal moo ko ko gënal kon bu ñu yàlla indilee président bi nga xamante ni dafa xool loolu xam ni picc nga ca kaw xel maa ngi ci suuf mu ne ñee nga xam ne dañu bàyyi seen réew ngir wuti jom naa leen dimbali fa ñu nekk jàppale seen jigéen ngir ñu mën a am doole am lu ñu mën a yaxantu ak ñi nga xamante ni ñoo di seeni góor nekk fii képp ko nga xamante ni bind nga indi lu am solo lu nit mën a dégg lu nga xamante ni da nga ci jàppale sa bopp jàppale ci sa askan ñu jël ci koom-koom jox la kon loolu defe naa ne bu jàllee doomu Sénégal ñun ñëpp war nañu am suñu ngor am suñu fidélité bañ a wor bañ a tappale bañ a juum ñëw delloo si xaalis boobu nga xam ni moom la ñu leb ndax fii képp ku nga xamante ni dem nga fi ci banque garanti sa kër wala nga garanti alal joo fonk danga ca xar sa tànk tubéy ba doo ko ñàkk ndegam moom moomu nga mën a ragal nag ki leen jox li moo ëpp doole banque fuuf kon nag li may ñaan mooy góor góorgóorlu te fas jom te jàppale ñi nga xamante ni président de la république dafa am yaakaar ci ñoom jox leen alal ji ñoom ñu wëlbati ko amaat yaakaar ci ñun jox ñu ko kon yàlla bu ci yàlla tas suñu yaakaar nanu leen góorgóorlu def li nga xamante ni moo nu war

représentante des femmes des Émirats arabes unis, Bébé Diop. merci monsieur le ministre 2014 pays qui nga le fait IESA 232 bénéficiaires Italie 72 Côte d'Ivoire 217 France 103 Mali 255 Espagne 54 Belgique 25 Gambie 23 Arabie Saoudite 148 Mauritanie 30 Burkina Faso 94 Dubaï 19 Gabon 101 muy une valeur de 1 milliard 350 mille euh, man dem naa madame Naata Samb Mbacké Portugal ba ñu àndee dem fa waa Portugal nee nañ la fa am musu faa am te it son excellence ba fa nekk représenté la représenté président mu ngi fay liggéey liggéey bu am solo yan na leen yàlla dolli sutura Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Madame l'administratrice du FES, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole d'abord pour remercier vivement le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, qui a bien voulu mettre une structure dénommée FES dédiée exclusivement à accompagner les Sénégalais de la diaspora et de les impliquer dans les efforts de développement national. C'est dans cette, dans cette perspective que pour la première fois à Dubaï, grâce au Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, la communauté sénégalaise a reçu un financement d'un montant de 50 millions, ce financement qui traduit la volonté du président de la République à soutenir la diaspora est venu à son heure et a permis de a permis aux femmes de pouvoir réaliser leurs projets. Aussi, au nom de la diaspora de Dubaï, je remercie Madame l'administratrice du FES pour sa, disponibilité et ses conseils. Elle n'a ménagé aucun effort pour la réussite de nos projets en mettant tous les moyens, tous les moyens pour nous accompagner. Sachez que nous, vous aussi, feront de même pour honorer nos engagements, à savoir le remboursement du financement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim Diédou. 2015, Monsieur le ministre, pays qui a fait financer Pointe Noire 138 bénéficiaires Allemagne 43 bénéficiaires Maroc 94 bénéficiaires Guinée Conakry 19 Bénéficiaires 2016 bi ñu France 148 bénéficiaires Turquie 105 bénéficiaires Portugal le naa fa comme leen ko lañ fa wax nañ la fa am su fa am président Macky Sall son excellence moko fa def ak le ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye ànd ceeg waa Fès naata États-Unis 24 bénéficiaires Chine 33 bénéficiaires Guinée-Bissau 179 bénéficiaires total de 274 bénéficiaires tey 850 millions pour 170 projets son excellence le président Macky Sall l'homme de la dialogue national l'homme du référendum il a ko fi yàlla il yal am un deuxième mandat ndax nag diaspora nañ le président jël na réew bi ndax diaspora bi ñu ngi liggéey di indi Sénégal ñu ngi liggéey di jàppale seeni mbokk bañ nañ ko ba logements sociaux yi sax ci lañ Ibrahima vous avez la parole